Bienvenue sur Salam Vision. audhubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim laa hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli wa ba'du nuhayyikum bi tahiyyati islamiyya naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci seydina muhammad ñaan yàlla borom subhanahu wa taala bépp bàkkaar bu ñu def yàlla nañ ko yàlla jéggal di ñaan borom subhanahu wa bépp yi bu ñu def nuñ ko fulandir di ko ñaan borom subhanahu wa lépp luñ ko jaamu mu nangulee ñu ko moom ci nu mu toll bañ ñu ko nangulee ñun ci ni ñu toll ndax ñun bu dee ni ñu toll barewul te ku jëm kër yàlla nag li nga fay yóbbu dafa war a bare te yàlla moom dafa bare lool macha allah kon nañ ko nangulee moom ci nu mu ñun mu bañ ñu ko nangulee ñun ci ñuy toll wa di julli ci seydina muhammad bi nga xam ni mooy sangi sangi ashraful xalq di yaakaari jaam yi yàlla bëggal ko boppam xool loo ñu ko di ko julli ci moom benn yoon ma julli ci fukki yoon ku julli ci moom fukki yoon mu julli ci yow téeméeri yoon ku julli ci moom téeméeri yoon mu julli ci yow junni yoon te ku julli ci moom junni yoon bu yow xiyaamatee maa yow mbagg ak mbagg ba te moom yàlla njëkk a julli ci moom inna allaha wal malaikatuhu yusalluna ala nabi kon yaa ayuha allazina amanu sallu alayhim wa sallim taslima kon ñu gëm tax ñuy wax ndax am na yaa ayuha allazina kafaru am na yaa ayuha annaas am na yaa ayuha yaa ayuha allazina amanu kon bu waxee tey ni yaa ayuha allazina amanu yéen ñi gëm julli leen ci seydina Muhammad moo tax julli lu mu doyee doyee bu xëyee suba balaa muy tëdd wan lu mu dee dee mu julli téeméeri nu seydina Muhammad allahumma salli ala seydina Muhammad wa sallim di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala moo ñu kàttan ak xel ndax jamono ji toll nii am na ñoo xam ne mënuñu wax kon bu la yàlla may làmmiñ julli ci sidina muhammad loolu ñaari bénéfice wa tabarakallahu di nuyu di ziara xalifatul am di sëriñ babacar si mansour atala umruhu wa ayadahu nasara di ko ñaane yal na yàlla doon di fanam yal na yàlla doon di sàmm ko yal na yàlla doon di wattu ko liggéey maamam bi mu tàmbalee yàlla may ko ci ndam liggéey jumaa ji àgg bu mu indi gëru ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yor ji ko yàlla nag tabaraka allahu yàlla nag tooñ mu toog fu mu toog noppi te waroon mën a riposte te bu riposte du baax ci yow mu toog fu mu toog kon Serigne Babacar Sy Mansour jikko yàlla yor ndax yàlla am ñoo xam ñoo ngi xëy ay junni junni doomu aadama xëy di ko mooy te bu ñu génnee ci mbedd mi kenn du xam te bu ñu génnee ci mbedd mi ñu loolu Serigne Babacar Sy Mansour dafa yaatu ginnaaw kenn ku ne boo jàppee ni boo waxee te tontuwul wala nga jëf te réagirul jàppal ni jikko yàlla yor waaye loo mën def ko am na fukk yoo xam ne mën na ko ba ko mën a di ko yàlla yàlla yàlla gën guddal fanam liggéey bi mu tàmbalee ànd ko ay rakam ko ay doomam ànd ko ay ko ay ay ay sëtam yàlla yàlla gën a guddal fanam bàyyi ko ci kanam mu njaboot bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy nuyoo Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides di ko ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam yàlla yàlla gën a sàmm ko yàlla yàlla gën a wattu ko yàlla yàlla gën a dëgëral ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu xalifa général Xaadiriyya nekk ca Ndiassane Serigne Bekkaay Serigne Cheikh Bekkaay Bekkaay Kunta di ko ñaanal moom it atallahu umruhu wa ayyadahu nasara yàlla yàlla guddal fanam noonu la ñuy nuyu suñu sox bi fa nekk di Baye Bekkaay Kunta di ko ñaan yàlla moom it yàlla yàlla doon taxawu ko ak mboolem ahlu Kuntiyu di leen ñaan yàlla yàlla gën a guddal seen fan yàlla gën a sàmm leen noonu la ñu nee xaw général ci kaw suuf yëpp dem ba cere ba bàyyi ñu waa cere ba dem ba Léona dem ba Medina Baye dem ba mu dem ba Daaka dem ba Louga mboolem xalifa général yi ci kaw suuf yëpp ñoo leen di nuyu di leen di leen ñaan yàlla yàlla gën a taxawu leen gën a dëgëral leen bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy ñëwee kilifa aada président de la république ak ñi ne ci opposition bi yàlla yàlla ci réew mi jàmm yéen a ngi jëm ci élection kaay ma liggéey leen jarul xeex kaay ma liggéey leen jarul saagante kaay ma liggéey leen jarul xasante kenn ku ne bu la réew mi ñoree yaakaar naa ne ay xasante nga ko war a laajee wala ay tamante dëmm wala ay xasante wala ay saagante déedéet yéen i saa saa dafa ne ki gën ci yéen gan ne damaa bëgg doon seen jaaw dama ne da bëgg liggéeyal ki fi nekk ni mu war a li ko war a defee ko noonu maa yaakaar maa gën a am xel ci war ko mën a defar kooku boo xoolee laajte laaj ko ci anam bu rafet te bu la ko yàlla joxee tamit na nga xam ne borom subhanahu a taala la ko jox tuuti mulka mimman tasha yàlla joxe nguur ko neex wa tu'izzu mulka mimman tasha bi yadika xayr innaka ala kulli shay'in qadir yàlla mooy joxe kàddu mooy joxe nguur mooy xol ku ko neex. mooy kàttanal nit mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy rocci kàttanu nit yàlla rek moo xam loolu te yàlla rek moo koy joxe waaye nag wa tarzuqu man tashaa'u bi hisaab ko neex waaw xoolul ci ku njool xoolul ko gàtt ko ñuul xoolul ko xees xoolul ko ko ko ñàkk jullit xoolul ku ko neex la wa kon nag waaye nag tuliju l-layla fi n-nahaar wa tuliju n-nahaara fi l mooy fekk guddi génne ci biir bëccëg fekk bëccëg génne ko ci biir guddi kon fa tabaarakallaahu ñu laaj ko rek ci yar laaj ko ci dal laaj ko ci teggin xam ne ñun ñëpp ñoo bokk réew mi te bu réew mi jege ñu ñëpp la jagal waaye bu réew mi yàqu ñun ñëpp la yàqu di nuyu di ziara le DG de Salam Vision di Serigne Sam Seck waaye du ma fàtte mu di ko ñaan yàlla na yàlla gën a guddal fanaan yàlla gën a sàmm ko ñu ngi ànd ak yéen seen oustaz seen xarit seen sopp oustaz Ibrahima Diarra fii ci Salam Vision seen émission bi di al ilm taalim di xam ak xamle comme ni ñu koy faral di waxee ñoo fi ne di wax waaye amaana am na ñu ñu ëpp xam-xam fuuf ba tax na tey fi jógee foofu la ñuy woote bu ñu woote yee ñëw toog fii war kaa mën a jottali daa Quraan ni fazakir fa inna zikraa tanfa'ul mu'miniina fàttali rek nga fàttali dalaa war ndax boo fàttalee amaana ki fàtte woon fàttaliku amaana ki woon xam ci kon fa tabaaraka Allaahu loolu mooy yéene Salam Vision fii nekk ci banlieue bi. ànd ak yéen ànd ak yéen chaîne YouTube bi di nuyu di ziar ki nga xam ne mooy réaliser émission bi di xaaj dam di ko ñaanal yéen yàlla gën a guddal fanam yéen yàlla dëgëral ko yéen yàlla gën a wattu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu tey seen bindu tey bii ñu bind nekk ci bindu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu soroo ko ci nga xam ne mooy euh, li naan rawaahu Bayhaqi day wax ni wax bu ne diw moo koy solo diw moo ko ne yéen wax na ko ñu ne diw moo ko solo diw moo ko dégg juróomi tey soo nee sëñ Babacar Sy Mansour wax na ñu ne Alioune moo ko solo Alioune Diagne ko jëlee ci Soleil Ba Soleil Ba mi ngi ko jëlee ci Lamine euh, Lamine Niang Lamine Niang mi ngi ko jëlee ci Moustapha Sarr loolu mooy wax ji wala ñu ne Alioune moo ko fekkee rek yam nañ foofu bind loolu wala ñu nag jëlee ko ci Bayhaqi mu jëlee ko ci Ibaaratul Ibnu Saba waaw waaw mu jëlee ko ci Ibaaratul Ibnu Saba da ko jëlee. waaw Ibaadu ibnu Saamat si saxaaba Seydina Muhammad la bokk bay xaq mi ngi ko jëlee ci Ibaadu ibnu Saamat kon fa tabaarakallaahu lan la ko jëlee mu ne Seydina Muhammad nee na itmanu li sittan min anfusikum atmam lakumul jannata nee na Seydina Muhammad nee na warul leen ma juróom-benn ma warul leen àjjana nee na bépp kuy jullit ki wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullaah Seydina Muhammad nee na warul ma. neel man yénti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam juróom maa la ko warul soo déggee ne ñu ne warul mooy dinaa la ko defal juróom-benn yi dinaa ko def yow rasulullah Seydina Muhammad ni ku ma defal juróom-benn yi man Seydina Muhammad ma joxoñ la ne la man tamit dinaa la jox àjjana waaw Seydina Muhammad mu ni warlu leen mu juróom-benn ku ma warlu juróom-benn yi man rasulullah ma warlu la àjjana wala mu ne at di sitta min anfusikum at man lakumul jannata warlu na leen ma juróom benn ma warlu leen àjjana bi ci jiitu bu Seydina Muhammad wax nañ ko ko warlul mu warlu nu àjjana ba moo si jiitu mu ne isa isdaqu isa xarastum nee na ba ngeen di wax na doon dëgg seen waxtaan yëpp na doon dëgg bu leen di fen Seydina Muhammad nee ku dul fen mën naa laa asseer àjjana waaye kuy fen xamal ma ci yow daal kon ñun fan lañ jëm fan lañ jëm réew mi nga xam ne léegi bu leen cent pour cent quatre-vingt-dix pour cent yëpp dañuy fen dem nañ ba jàppeetu lu fen muy dara dara dara dara dara dinaa ko def te doo ko def dinaa ko wax te doo ko wax dinaa ko jëf te doo ko jëf wax loo xam ni dara dara dara du ci dëgg te wax nañ ni fen dafa yëngal aas waaw waaw fen da yëngal aas nekk fii ñu woo la nga ne maa ngi wataaf wala ñu woo la nga nekk sa biir nekk ngay damaa génn waaw wala nga tëdd fi nga tëdd naan maa ngi si léegi léegi léegi léegi léegi si naa yeeg si naa maanaam mu ne istawoo iza harastum bu ngeen di waxtaan da doon dëgg bu ngeen bëgg waxtaan bi neex rek ngeen di créer ay wax ngir bëgg reetaanlu nit ñi surtout ñuy reetaanlu nit ñi naan day reetaanlu dafa baax waaye reetaanlu ci dëgg ay créer say wax fen say fen pour nit ñi reetaan ngay damay bëggal loolu jaamu yàlla loolu xaw ma façon jaamu yàlla te yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni jullit du fen waaw nga bëgg nit ñi ren nga créer sa benn wax ko ba nit ñi reetaan astawoo iza harastum nee na ba di waxtaan na doon dëgg waaw bul xool lu neex diw boo xuloo xam ne dara amu ci waxtaan ci daayira yi ci gàmmu yi di créer ay wax jëmale ko sa sëriñ te loolu dara dara amu ci ngir nit ñi bég ngir nga mën a am seen am na seen poos waaw créer say wax sëriñ bi defoon na lii wax na lii fekk na sëriñ bi defu ci dara dara dara dara dara yow yaa am sa xel mu neex sa xel mu ñëw jàpp nañu ay fanatisme lañu boo war leen mën a jaar foofu waaw yéen am na sallallahu alayhi wasallam bu ngeen di wax day wax ci dëgg mu teg ci ni wa awfu iza wa'atum da ngeen sàmm kóllëre daam du xam tey suba wane xam ka ca des léegi Sénégal léegi kóllëre amatu fi rawatina politicien yi te da ngay ànd nit di defoon nag moom dem ba dara desul lu dul ngeen atteindre seen objectif mu gis benn 500 wala benn 1 million war la. mel ni musulaa xam wala mu ñàkk daal ñu sëkk di fa añee di fa reeree di fa seetaanate rek commencé am salaire rek gisatoo commencé liggéey rek bàyyi na la avant muy am liggéey sa kër moo la moo doon lal basa yi moo doon lemmi yi fa añee di leen waaye kër bi ko yàlla may wërsëgu weer cinquante mille cent mille gisatoo ko waaw waaw te nit day am couleur Sëriñ Baba bis daan wax naan kóllëre gi ñuy matt moo gën bi ñuy weq waaw kóllëre dem na ba nga nga ngay ñëw di seet si nit ba mu gaañu sax war ngaa mën di ñëw ci waa kër gi di leen da jël si ko ñaanal loolu mooy kóllëre moo tax bi ci jiitu ba ngeen di waxtaan na doon dëgg bi ci ñaareel am kóllëre ku ci am kóllëre ba yow mu teg ci ni wa addu isa ut mintum su la nit ki wóoloo bul ko war nit bu la wóoloo bul ko war léegi ndax Sénégal léegi am confiance ci nit fii jaaroote na xaaj ndax Sénégal léegi am confiance ci nit ki jaaroote na da ngay nit mu xam sa secret wala nga waxtaan ak moom bu génnee ci mbedd mi ma ngi koy waxtaane da ñëw ci daam ni ko daam man daal def naa ni suma seyoon na yem sama diggante yow daam génn dem wax ko DG ni ko suma seyoon na yem sama diggante yow DG génn dem wax ko Pape Daouda ni ko suma seyoon na yem sama diggante yow boobu bu yàgg kenn koy bu yàggee du wër Sénégal ah te nit bu la wóoloo bul ko wor léegi ñun Sénégal léegi wor bi comme ndox wor bi comme ndox nekk nit. bëgg ko te yàlla tax mu xëy xëy bi rek mel na mosulaa xam nekk nit di liggéey moom mu xëy xëy bi rek nekk nit di yéegandoo di wàccandoo mu jéejee sa am rek te Seydina Muhammad ne na jikko jooju ku mu ne ci yow nga dem àjjana waaw maanaam mu ne wa addu isa atmintum bu la nit wóoloo bul ko war nag waxfazu furujakum na ngeen wattu seeni pëy muy ko góor ki muy ko jigéen ki mooy sa awra bu ko dugal foo xam ni wala bul dugal bul nangu ñu dugal ko foo xam ni joxula can ku góor ki fekk takkoo xalam jigéen bi bul xam si lii ba mel xalam jigéen bi fekk xalam góor bi takku la bu mu bul xam tubéy mu mel waaw bul xam jiir laay mu mel Seydina Muhammad ne da nga sàmm waaw da ngay muy ku góor gi muy ku jigéen gi waaw sa pëy du fural neex rek nga koy sànni ba te xar wala wala bëy xam ne comme ay ñoo xam ne comme ay xar pour ñoom xaram jigéen bu ñu gisee rek war nañ ko mën a xam lu muy saf waaw Seydina Muhammad ni sa pëy boo koy dugal wala sa pëy boo koy joxe. joxe ko fi nga xam ne joxe nañ fa caal ah waaye du ma ñàkk fayda ba xale góor moo woo rek ma teel a teel a wala fekk la sa biir nekk déedéet waaw ah, si ndax ma xam ne ne ba dee wala ba am borom kër wala ba am soxna nee na yow bokk nga ci nitu àjjana yi waaye nag wa xuddu absaarakum nee na seen bët yi da ko fekk bu leen ci xool lu xaraam ñun nag léegi Sénégal xool lu moo ñu gën a dagal waaw des ko xam ne xam ne jullit laa taalibe Sëñ Tuubaa laa taalibe Alaaji Maalik laa du xëy mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk ba jël bëri teg ko ci alquran mbaa xadis mbaa mbaa mbaa mbaa xasaay mbaa xasida film bu bon film porno wuy bon moo ngi teg bëri bi di ko seetaan di ci yàq taamu lu bon rek lay seetaan te daal boo waxee mun la jullit laa taalibe Sëñ Tuubaa laa taalibe Alaaji Maalik laa taalibe Sëñ Fall laa dina xëy suba waxuma sax xëy suba dina xëy weeru yàlla xeeb na weer dina xëy at bëtëm bi du ko teg ci alquran du ko teg ci hadis du ko teg ci xasida du ko teg ci xasaay lu bon la koy lu bon rek lu yàlla gërëmoo rek yéen ci yàlla Muhammad salaam ni seen bët di ngeen ci xool lu xaraam bu leen ci xool lu xaraam xool leen ci lu dagar képp ku fekk say bët ba nanguwoo ci xool lu xaraam da ci xool lu dagar bu yow xiyaamatee man Seydina Muhammad maa waaye nag bu muy juróom-benneel bi mu ne wakku fu aydiyakum seeni loxo yi ngeen ko fekk wala seen tànk yi loo moomul ba ko fa loo moomul ba ko fa fu yàlla gërëmul bu fa dem nee na képp koo xam ne fekk nga say loxo ba jël ci li ci war a loo ci war a jël nga bàyyi ko ba say tànk fekk nga ko fu yàlla gërëm nga dem fa fu yàlla gërëmul nga bàyyi ko Seydina Muhammad nee na bokk nga ci ñi nga xam ne naa ne warul àjjana kon fa tabaraka allahu loolu suñu mbiru tey bii ci suñu émission bi al ilm wa taalim ngeen ànd ak seen sopp seen xarit al oustaz Ibrahima Diarra di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala yéen yàlla defal dégg ak topp yàlla defal ñu sutura àdduna sutura alaxira duñu daane lu tollu doom ci moom si waaye fa tabarakallahu di sët ci sëriñ Babacar si waaye di sët ci Cheikh Seydi Hadji Malick moo ne fii ci di mag bi di gën a mag télé bés fa seen fa taxawal institut islamique sëriñ Babacar si waaye zawiya maam Serigne Babacar Sy di ci woo jullitu yàlla yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñu kenn waaye duma daanante lu muy nuyu sama Serigne boobu Serigne Moustapha Sy mu Serigne Abdoul Aziz Al Amin mu Serigne Babacar Sy mu Cheikh Seydi El Hadji Malick responsable muxtafina fi asari abaay wal ajdaadi di ko ziyaara di ko ñaan yàlla yàlla gën a guddal fanam duma daaneel mukk te duma nuyu sama Serigne boobu Serigne moom Ousmane Sy Dabakh mu Seydi El Hadji Malick di ko ñaan yàlla yàlla yàlla gën a guddal fanam yal na yàlla gën ko yal na yàlla gën a jàppale ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duma daaneel mukk te duma nuyu sama sëriñ boobu sëriñ Diagne nekk ba xam ne fa tabaarakallahu mooy mooy mooy mooy Moussawbe nekk fële sa njaaram di ko ñaan yal na yàlla Mbàkke nekk fële sa Mbàkke di ko ñaan yal na yàlla gën a guddal fanam yal na yàlla gën a sàmm ko duma bàyyi mukk te duma nuyu fa tabaarakallahu sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom di sëriñ ki nga xam ne fa moom moom chaîne YouTube bi di ko ñaan yàlla yàlla gën a guddal faram yàlla gën a sàmm ko du ma daal mukk du ma nuyu waa daayira muqtafina fi ase abay wal ashari du ma fàtt waa mujahidina fi sabilillahi waaye du ma fàtt waa Cheikh Tidiane waaye du ma fàtt muxlisina wal muxlisaat waaye du ma fàtt waa xidmatul xaddim waaye du ma fàtt tamit waa zikrullah muridullah fa seen amal cant le 18 décembre fii ci fii ci cité pépinière en face Bantamba di woo jut yàlla yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaw muridullah zikrullah ñoo leen woo si sant moom Cheikh Ibrahima Fall boobu ànd ko seen sëriñ boobu sëriñ Jiri waaye nag seen sëriñ boobu góor a ñëw di sëriñ Cheikh Fall takk der di jógee ba Mbàkke di ko ñaan yéen yàlla gën a guddal fanam yéen yàlla gën a sàmm ko yéen yàlla gën a wattu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ma daaneel mukk di mu ngi sama jarwaat boobu kumba suna waaye du ma fàtte mukk maam moor maam moor taalibe taalibe Ceneba taalibe Serigne Cheikh Thiénaba borom yàlla nee na di ko ñaanal Serigne Mamour Ndiaye yéen yàlla gën a gudd sa fan yéen yàlla gën a sàmm la di taalibe Serigne Cheikh Seck borom yàlla nee na ñoo ngi lay ñaanal yéen yàlla gën a gudd a fan du ma fàtte mu Serigne Khadim yéen yàlla gën a gudd sa fan yàlla gën a jàppale la bëgg nga alxuraan yéen yàlla gën a bëgg loola ko bàyyi laa sa du dama daan mu. te dama nuyu Fapal ak sa soxna sa soxna Kumba ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi ànd ci émission bi ku tudd tey xamal ne suba wala ginnaaw suba gannaaw tudd te ñu bëgg mu tudd la gën bari wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne amaana laaj na ko sa am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañu sonal ci tudd li di leen ñaanal yàlla yàlla gën a guddal seen fan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sur Salam Vision.